sur la question de la candidature xam nga ñun comme ni ko xale yi di waxee ñun euh, toppuñu kenn ñun président Macky Sall la ñu topp. Mm-hmm. te boo àndee ak nit da ngay mën a am lecture ci lim bëgg nga ciy anticiper waaye moom it dafay war a mën a am sensibilité ci li nga bëgg mu koy jël en considération le président Macky Sall li mu wax sénégalais yi yëpp dégg nañ ko sur la candidature te ñun mooy suñu kilifa nee na àdduwu ci dana ci wax mais àddoogu ci waxul waaw waxul déet. Mhm. mais ñun li ñu wax mooy bu fekkee ne constitution bi may may na ko ko ñu ngi koy ñaan mu ne waaw. d'accord parce que jàpp nañ ne doon na nit koo xamante ne amal na njëriñ Sénégal. Mhm. yóbbu na ko fu ñu yaakaarul woon donc ñun suñu désir la wax suñu option politique la wax li ñu bëgg lañu wax assumé ko waaye nag kaddu gi gi mujj ki ngeen di dégg ci gémmiñal président lay génne ñi ngi ko ciy xaar parce que war na wax ak sénégalais yi euh, fii la ki fan fekk dialogue bi euh, pour que seen ay Euh, mu doon un :fra boo xam ne ñu bëri a koy xaar